mais li ñu nga xam ne lañ jàpp mooy ne du man rek danaa la ñuy liggéey ak groupe dafa war a Sénégal dafa war a benn pouvoir médiation xam nga mooy pouvoir médiation. Hmm. li fi xewoon mars deux mille vingt et un moo ko réglé. Sëriñ si. waaw léegi Sëriñ soosu fan la à quel niveau la leen suñ démocratie jël en charge. Hmm. république Sénégal à quel niveau la leen jël en charge à partir yoo xam ne amul benn transparence pour créer leen chambre boo xam ne du ñoom rek.

nekk mairie Gunaas wala wala wala wala wala wala wala wala wala euh, booru Laamaram fële. Hmm. ci Saalum xam nga ba pare en même temps nekk ci bureau politique bi léeg-léeg sax bu dof def loolu nekk ministre nekk lii nekk lii nekk la nekk la doo liggéey fenn bureau ba duñ la gis ndur bu xaalis bi wàccee nga jël ko yóbbul ko sa base politique recrutement yi du nekk ci benn talent ci benn mérite bu dul nga jël nit ñi caser leen pour caser la clientèle politique loolu dafa mën a wéy il réformer. ministre d'une politique. ministre un ministre politique. la réflexion dinañ ko poser dëgg mm-hmm. mais xam naa ben directeur de politique. Ben, ñaareel que suñu caisse de dépôt et de consignation il Faut une réformer ko. Mm-hmm. Faut une réformer parce que la xew xam Hallo. alors mais gis nga dañuy rek. normalement rek le euh, comment ça s'appelle encore.

dañu jël caisse de dépôt et de consignation mais bañ ko toppatoo ni ko français yi doon defee am na yeneen système parce que tey jii am nga financement booy bëgg ça def sa école banque mondiale du ko financé. Mhm. FMI du ko financé parce que intéressé wu leen mais alal ji ngay déposé di ko dajale foofu ñaata milliards mën na ko financé foofu on a des réformes et des propositions claires yu ñu fa indi. Mhm. mais ci pàcc boo jël tey ci soo mën a wax ci agriculture comment on va amener des smart cities mais xajul yëpp yëpp xajul fi. lépp xajul fi. émission spéciale programme soo jàllee après le 11 décembre. spécial programme. dina